non mais euh, non seulement euh, dafa war a dem est-ce que occasion. dafa dafa mën na dem mais dafa war a dem te day dem aussi ala kulli xaal la déclaration de politique générale il le fera. Où? alors dinaa ñëw ci question boobu surtout par rapport ak euh, euh, issue bi nga xam ne jox na ko assemblée nationale. Mmh. ak aussi alternative bi nga xam ne offrir na ko peuple bi. la la déclaration de politique générale c'est une exigence constitutionnelle ko euh, ndey sartu réew bi moo ko moo ko ko sas mënu mhm. ci mënu ci mënu ci mënu ko teggi mais euh, may may rappeler ne euh, au-delà de, de, du problème de légitimité que nous constatons manifestement des députés ñoo xam ne dañu fas yéene salfaañe mandat ak mission bi nga xam ne moom leen peuple bi sant il y a problème de défaillance professeur souligné na ko fi mu nekk nii li ñu am problème yëpp problème mu défaillance kese la défaillance technique des députés devaient insérer dans le dispositif réglementaire euh, un élément permettant de faire la déclaration de politique générale devant l'Assemblée defuñu ko Ousmane Sonko vient de leur offrir en offrir la l'opportunité bu ma kenn di wax ne parce que dans le passé on l'avait on on on a fait ceci on a prêté ce, euh, on a fait telle discussion sur la base du même règlement intérieur dama ne benn yoon la ñu fi posé gum ñaari yoon la ñu fi posé gum la question de la déclaration de politique générale avec Amadou Ba les députés du PASTEF avaient posé le problème. Mmh. poser le problème ñu bañ ko régler terewul aussi ñu participer quand même au débat qui était là ils ne vont pas fuir l'Assemblée nationale. le rôle était de représenter le peuple ils ont continué à le faire. mais est-ce que pour pour pourquoi defuñu ko euh, euh, si jamono jooju comme daal ni ñu maanaam ni ñu ni ñu assaillir li nga xamante ne mooy les médias ak communication bi si am. est-ce ko c'est-à-dire il faut pas euh, aller compliquer les choses là-bas xam nga li am so li ëpp solo li ñu wax ni yëpp yéen yéen a ko bëgg a jàppee noonu mais ils n'ont fait que informer à l'époque ils avaient saisi Amadou Ba ne ko waroo ñëw ci conditions yi nii mu ñëw. bi euh, Ousmane Sonko war a def déclaration de politique générale saisir nañ ko c'est très simple alors moi je pense que Ousmane Sonko bu nee bu ngeen deful euh, bu ngeen euh, rendre le le bu ngeen actualiser wul le règlement intérieur ba le 15 damay dem janoo ji ak peuple bi il en a totalement le droit et la légitimité li tax mooy. mais constitution bi dafa wax ne. déclaration de politique générale devant une assemblée la ko war a devant une assemblée mais vous savez l'assemblée nationale c'est une représentation du peuple dafay dañu ndawi euh, waa réew mi lañ fa toogal ay ndawi réew mi lañ bu ñu demee nag ba réew mi wóor ñu ñëpp ñëpp di gis ne ñan ñu fa toogal dañu fas yéene toogal seen bopp ak toogal ci euh, salfaañe règles yi ak di def lu leen neex mën nañu am dans toutes les sociétés de temps en temps on fait recours à, à, des assemblées populaires yoo xamante ni waa réew mi composantes yëpp ñoo ñëw toog ñu waxtaanee loo xamante ni dafa am solo te te te lu mënta ñàkk la. mais loolu loolu du ñàkk du manque de respect dans tous les cas est-ce que du ñàkk tey nous sommes aujourd'hui le 27 je crois <coughs> euh, le 27 ou le 28 juin il leur donne au moins plus de deux semaines pour régler ce problème qui peut être réglé en trois jours donc il leur donne cinq fois mais la possibilité de vous avez dégg nga euh, explication bi professeur waaw ci loolu de toute façon je pense que ça serait beaucoup moins grave que ñu toog fas yéene def une déclaration de politique générale ci dans un cadre totalement illégal je pense que il leur il leur est offert euh, ñoom les députés de Benno la possibilité d'aller dans le sens du peuple mooy nañ dem defar règlement intérieur bi euh, président Ousmane Sonko du parti PASTEF premier ministre du Sénégal ñëw def déclaration de politique générale am. Mhm. pare na ko naan déplaise maintenant. sama xarit Moustapha Wade nga xam ne bu sañoon tey waa ji du am déclaration de politique générale mais Ousmane Sonko yàkkamti na pare na pour def la déclaration de politique générale amul lan lu mu ciy ragal. Mhm. ni sur le plan technique il a toutes les compétences techniques. Mhm. pour présenter les grandes lignes des politiques publique du Sénégal. moo ko tëgg moom ak Bassirou Diomaye ak ñeneen maîtriser nañ ko. ni sur le plan juridique parce que il est le premier ministre il a la légitimité il a le, euh, il est dans dans le respect des règles de la constitution encore moins sur le plan politique parce que réew mi ñu nekk di Sénégal ci bés bi ñu nekk nii tey ñi fi ëpp Ousmane Sonko la ñu àndal donc je pense que euh, taxaw di wax ne Ousmane Sonko à peur de quelque chose wala bëggul def amul sens d'autant plus que moom. bu defoon tey déclaration de politique générale bi lan lañ mën a supposer mu koy ragal te mu ragal sax c'est pas le terme ah, euh, approprié euh, c'est pas le terme approprié mais lan lañ mën a euh, supposer mu koy moytu ci ñàkk responsabilité boo xam ne commencé nañ ko constater ci ñoom Abdou Mbow ak ñi mu àndal un sens totalement totalement dépourvu du sens des responsabilités parce que bu ñu nekkee fii di susciter ay revoir la la, la, la constitution et cetera permet euh, comment dire empêcher au président le président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale s'attaquant ainsi à un principe sacro-saint qui est l'équilibre des pouvoirs dans le pays. D'accord. Mais alors donc Ousmane Sonko je pense que euh, il n'a pas un problème de présentation de la déclaration de politique générale il serait juste idoine que l'opposition actuelle se dise que li ñu def nii déclaration de politique yi réew mi lañ ko defal dañuy permettre nga xam ne ñoom la fi réew mi teg mu mën a exprimer wu wax fan la ñu jëm ñu indi ci suñuy xalaat xam nga mais euh, une posture euh, euh une posture de de de de, de combat. D'accord. une posture de de de défiance boo xamante ni moom la ñu am instant bii nii. je pense que c'est totalement. Merci.